asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi siyaare mbokk yi fi toog yëpp di siyaare waa Touba ca kanam waa Aziz section Touba ñoo ñëwoon tey fas yéene jàpp ci liggéey bi ngi liggéey sëñ bi ñu koy wax social euh, ci weeru koor gi ñu ñëwoon andi woon suñu participation rek xam ni liggéey bi moom wax dëgg yàlla muy Aziz di Touba ca kanam ñun ñoo ko bokk te ñu fas yéene itam nag lépp lu ngeen dox ñu fas yéene ànd ak yéen. tey ñaan liggéey bi ñuy liggéey tamit suñu borom nangul ñu ko waaw tey rafetlu liggéey Touba ca kanam lool nag macha allah ndax li wolof njaanaan nit moom boo bëggee mu sawar ànd ak yow fa koy joxañ day fekk da fay fekk te yéen dafa mel ne wax dëgg yàlla li tax nit ñi ànd yéen nag moom li ngeen laaj bariwul waaye li ngeen jox nit ñi sax moo ëpp kenn ku nekk xam ne lam am ca Touba kanam moom moo ëpp lim ci lim ci joxe ndax aw 1000 francs wax dëgg yàlla bu la ci leeralee leeralee sa buntu kër day mel ne boo doon jënd sa bopp dana ëpp loolu kon day mel ni lu mel ne mooy soñu doomu aadama yi Aziz daal ñi ngi seen kanam fas yéene ànd ak yéen liggéey bépp rek am nañ fi enveloppe euh, bu toll si ñaar fukki junni cent mille francs di ñaan yàlla sa borom sàmm sàmm sàmm ñëpp de sàmm seen euh, kilifa gi muy présidence yëpp dafa laa ak mboolem ñu mu àndal di ñaanal ñëpp suñu borom dafa leen tawfeex ak taysiir. di xam dañ fee ñëw tey ci turu Cheikh Moustapha Mbacke moom seex Abdoul Khadir moo ñu yónni ci Serigne Mourtala mi nga xamante ni moo yor commission sociale ngir mu ànd ak ñoom ci liggéey bi nga xam ne dañ koy liggéeyal Serigne Touba ci bi moo moo amoon yéene sax yónnee ko démb waaye tey jii la la biig la ma woolu ak Mor Seck mi nga xam ne mooy ak bëkk néegam boole leen ni kaay leen demal ma ca Serigne Mourtala wax ñu yéene ji nga xam ne moom la am ci liggéey bi ak bëgg gi mu ko bëgg ak jàpp ni moom ngeen koy defal moo tax mu yónni ma ci Serigne Mourtala ne ko boo demee joxal ma ko sama addiya kon daal sëriñ bi mi xam na ni lii ngeen def moom ngeen koy defal mi ngi leen ci ñaanal ci barkeb sëriñ Touba li ngeen ci bëgg ak li ngeen ci séentu ngeen amee ko kawe seen jort di am mbégte lool ci jataay bi jataay bi nga xam ne sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadre yónni na ndaw di sëñ Galas mi waaye waa ACIS section Touba di lëkkale commerçant yi nekk ci dëkk bi yable nañ fi euh, sëñ euh, Pape Ndiaye mi nga xam ne mooy seen coordonnateur moo leen fi teewal ñu ñëw nag tey ci bis bi nga xam ne euh, mooy bisu social social Ramadan social weeru koor wi nga xam ne Touba ca kanam naka jekk ba mu juddoo ba tey at mu jot dina ko amal dina amal bis ci biir weeru koor yi bis boo xam ne bisub dimbalante lay doon bisub dimbalante. bis boo xam ne euh, membre yi Touba ca kanam yi ak ñëpp ñi nga xam ne liggéey Serigne Touba ñor na leen ñooy dajale seen i addiya jàppee ko ci bis boobu nga xam ne sax. day xaw a wuute tuuti ak doxin wi nga xam ne moom la Touba ca kanam doon di doxe te mooy weer wu dee ku nekk joxe ñaar téeméer loola day nekk beneen leen boo xam ne dañ ko cay dolliwaat naka jekk sax moom la commission sociale di doxee waaye bis bii day bisam bi gën a rëy moom commission sociale bi nga xam ne sëñ Murtala ko jiite bisam bi gën a rëy ci eh, at mi mooy bisub social ramadan bi nga xam ne moom la def nii. di eh, sant ak gërëm ak ñaanal Cheikh Mouhamadul taxa mi nga xam ne mooy kilifa yoon wi te jamono bu nekk mooy ànd ak Touba ca kanam ci lépp lu mu mën a doon ne ca kanam ci wet yëpp ci ay kàddoom ak i jëfam. di ko dëgëral di ko dooleel di le di ñemeel Touba ca kanam mbooloo mi ci nekk. social bi yëkkati na lu ama amam solo def ko ci ni mu ko baaxoo defee lépp lu commission sociale di def lépp lu Touba ca kanam di def moom sañ sëñ Mountakha dana yëkkati alalam def ko ci <clears throat> ay kàddoom rek wala ndigaram rek doy na ci lépp waaye bu ca boolee ay kàddoom boole ci ay jëfam. Eh, day day day day day gën a taw féexe di sant bu baax ministre Abdou Karim Fofana di taalibe eh, Serigne Moustapha Sëñ Abdou Khadr eh, di koo xam ne moom tamit en tant que talibé euh, membre la ci Touba ca kanam boo xam ne jamono bu nekk mi ngi ciy jàpp rawatina ci wet gi nga xam ne moom la féete moom la féete ci gouvernement bi waaye di euh, ñaanal Cheikh Mouhamed euh, sëñ sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadr moom it suñu borom yagal ko fi te dëgëral ko ndax bi fa sëñ laa demee agge ko liggéey bi am na ci mbégte yëmut ci loolu waaye yabal ndaw yónni ko ngir moom it dugal loxoom ci bis bi. di sant bu baax a baax ak gërëm waa ACIS section bu Touba ci liggéey bi nga xam ne jamono bu nekk ñoo koy ànd ak Touba ci ci wet yëpp. ci wet yëpp ndax ni ma koy faral di wax rek Touba Ca Kanam mooy ñëpp xëy na mbooloo yi dañuy xàjjalikoo ngir gën a mën a nosu waaye ñoom ñëpp ñoo àndaat di Touba Kanam ndax weer wu dee kenn ku nekk ñoom dina joxe ñaar téeméer ci Touba ngaa néew kon bu Touba Kanam amee lum xewle day mel ne ñoom ñoo ko xewle bu ñu wëlbati koo dugalaat ci seen loxo ba tey loolu day doon geneen dollikuwaat goo xam ne tawféex la joo xam ne mat nañ cee ñaanal te ñaanal ñëpp rek mu doon liggéey bu nu nangu ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi dugal seen loxo ci Touba Ca ci social ak ci yu baax yëpp rek yàlla na doon liggéey bu nu nangu jërë ngeen jëf asalaamaaleykum